sa taalibe yi màggat nañ. sa taalibe yi màggat nañ déggu nii kat duñ say taalibe. duñ taalibe. duñ taalibe. loolu dëgg la de. mu ne loolu dëgg la sa taalibe yi nañ. sa taalibe yow bàyyi màggat nañ. déggu nii duñ say taalibe. te ñun ñoo xam nañ loolu. te ñun ñëpp fa xam nañ loolu. Baye Seynou de moo doon sama moo doon sama moo doon sama seexu murabbi. mu ne Baye Seynou bii de moom mooy seexu murabbi. waaye banaa ko man de diw mooy sama diw mooy sama sëriñ léegi ci moom laa jàpp. loolu mooy taalibe. mu ne loolu mooy taalibe parce que bu ñoo xam ne ne bëri na. te loolu kat ñu bëri xam nañ ne loolu moom lu bari la. diw ma jox wirdo moo ma tarbiya. diw moo ma jox wirdo moo ma tarbiya. waaye ba naa ko doyatul. waaye bay naa ko diw mi doyatul ma. manqué diw. manqué diw. da nga doxaat ba ñëw ci moom. da nga doxaat ba ñëw ci diw. noonu rek lay demee. noonu rek la demee. gannaaw noonu lay demee nag. gannaaw nag noonu lay demee. baaxut baaxut. nañ ko baax nañ ko ba te nekk taalibe te nekk taalibe ku nekk xam na ne avion bu ko tubaab di liggéey xaj taxul ku nekk xam na ne avion bu ko tubaab di liggéey doomu aadama yi waaye du xaj waaye bu xaj duggee avion waaye bu xaj duggee avion xandandoor bu baax bu xam kóllëre tax xandandoor bu baax bu xam kóllëre moo ko ci yóbbu kat asalaamaaleykum asalaamaaleykum